dama les deux décisions rendues par des juges mm-hmm. est-ce yaakaar nga ne loolu dina impacté sur les décisions yi nga xam ne la conseil war na ko rendre. mën nañ si dolli beneen sax. le mm-hmm. conseil constitutionnel mënut a weddi boppam. Mm-hmm. Euh, parce que am na ñoo xamante ni yàggul sax mën nañ jël rek bu euh, Déthié Fall ba mu demee euh, saisir conseil ci ba DGE di jaay doole di leen tere ñoom ñu rectifier seen liste bi conseil constitutionnel leen ni DGE li ngeen def tegoo leen ko fenn ba seen liste dañ ko valider. mën nañ jël ci waat ci ginnaaw ñoo xamante ni candidat boo xamante ni dafa demoon caisse dépôt consignation parce que forfaiture yàgg na ci réew mi. Mm. di déposer li nga xamante ni sa caution ñu bañal ko ko moom. dafa bañ a moo tax mu ne mënu weddi boppam. trésor public. waaw trésor public voilà parce que caisse de consignation Abdoulaye Wade moo créé d'accord alors euh, ba mu demee conséquence da ko ni lii faute bi mënuñu la ko imputer en fait cest à loo xamante ni yow du sa responsabilité administration moom moo def loo xamante ni waru koo def. Mm-hmm. moo tax ma ni conséquence mënut a weddi boppam parce que li ñuy wax ci Ousmane Sonko ñaar mbir la. Mm-hmm. mooy dañ ko bañal fiche. pour mu dem jëli ji parrainage. fiche bi moyen la mm-hmm. mooy fond bi am na parrainage. bu ko indee ci benn kayit sax ñu xool ni que lii nii mi ngi parce que ñoom fichier électoral dañuy xool. Mhm. bu ñu indee Pape Makhtar Diallo wala leneen parce que la preuve fichier ren nañ ko doogee indi def ci ay tur ak ay ay ay numéro numéro numéro ak yooyu. Mhm. voilà léegi bu ñu indee euh, benn fooy bind ci euh, Pape Makhtar Diallo numéro carte d'identité def signature am conseil li lu muy vérifier mooy nëgëm parrainage bii nii c'est conforme ak lu ne ci fichier électoral bi. Mhm. bu nekkee député la dañuy xool ndëgam kii mi dañ ko inscrire ci député yi nga xamante ñoo nekk di siège à l' assemblée nationale. Mhm. loolu lay xool mais du xool feuille bi nga xamante moom nañ ko indil. beneen bi aussi euh, li nga xamante ni déposé na ko sa caution. Mhm. bu amee li nga xamante ni moom mooy euh, kii bi. dépôt bi quittance bi am aussi euh, li nga xamante ni moom mooy kii bi procès bu kii def usier bi def. constaté que ni moom dem na déposé ji. ñu jox ko quittance ba noppi di wëlbatiku di ko bañ jox li nga xam mooy attestation. Mhm. mais moom. conseil constitutionnel mënut weddi boppam parce que rendre woon na décision boo xamante ni ci lu yoon boobu la jëm. maintenant li ci xaw xel. Mhm. mooy en fait que ñoom ñu génne cette précision euh, le 24 novembre bu ma juumul. 23 23 23 novembre. décision 1 la barre E. waaw ah, absolument déjà les le président ak le vice président siégé wu ñu xamul lu tax. Mhm. sur sept cinq ñoom ñoo signé. ñoom ñu génne ko ci contexte boo xamante ni ñu ngi naan Ousmane Sonko. ci jamono yi ngi commencé naan Ousmane sonk wax na mën a yóbbu dossier conseil constitutionnel. ñoom ñu ne balaa ñuy xool fond bi dañuy xool déjà forme yi te pourtant. lan moo lan lañ njëkkoon soulever Moussa Ba fii nañ ko soulever ba ñu nuyoo Ousmane Sonko dañ ko nar xañ fiche de parrainage dañu ni boo moytuwul pour invalider sa candidature dañu nar a jaar ci dossier bu incomplet. léegi bu ñu indee cette décision là mais xel yi dañuy tey. dañuy naan lii est-ce que en réalité ñi ngeen di noonu ñoo leen tax a jug. wala Pape Makhtar Diallo mi nga xamante dañ koo ciblé moo leen tax a jug. parce que 16 personnes yi ñuy naan déposé wuñu caution. Mhm. ñooñu taxul ñu leen jug. kenn moo leen tax a jug mooy régler au plus tôt mhm. euh, sa candidature mooy Ousmane Sonko dès demain ni leen Ousmane Sonko mënut a bokk. ci élection présidentielle parce que dossier am dafa incomplet mhm. loolu la si ñu bëri ragal moo tax gis naa ci ay euh, avocat Ousmane Sonko yi génn def ci def ci ay ay ay ay leeral ak yu ni mel mais man euh, naa ko léegi conseil constitutionnel moom dafa bokk ci source de droit boo demee sax ci site bi dala koy wax. léegi koo xamante ni bu joxee benn mbir jurisprudence lay doon source de droit lay doon. Mhm. mais kooku bu joxee dara moom ci boppam da ko war a respecter. d'accord Pape waaw mais Moussa Fa déjà la première règle bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel wala wala war war a dëpp moom conseil constitutionnel. Mhm. mooy déjà ci administration dañ ne. L'administration est soumise au principe de responsabilité qui l'oblige à réparer les dommages causés par elle-même. lu mel ni DG li mu def. mu nekk un tort lu mel ni CDC li mu def mu nekk un tort donc ñoom dañ ko war a dañu war a dañu war a réparer dommage yi bu ñu ko réparer wul premier fait bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel war a jël mooy réparer. constater et réparer heureusement que Pape Matar wax na ko les huissiers ont eu à constater ça. damay wax barki démb ci live bi ma def dama ne. par la force de ces jurisprudences parce que ñaari jurisprudence la nga xam ne ñoom la conseil constitutionnel daal di euh, décider euh, sur sur la base d'exploit de constat d'huissier mm à partir de ce moment mm-hmm. beneen cas bu ñu mun bu ñu ci bu ñu mën a indiwaat au niveau du conseil constitutionnel mm-hmm. mu àndax avec des exploits d'huissier yi nga xam ne dafa révélé wala wane ni que effectivement Pape Matar wala monsieur Guèye mi lii tax ba mënul mottale son dossier de candidature. Mhm. c' est de la faute de l' administration. loolu dafay am un caractère sa euh, nan laa ko waxee woon dama damay dama naan day nekk force de loi parce que conseil conseil constitutionnel ci boppam moo ko érigé en loi de l' instant où daf ko nekk daf ko def une jurisprudence dugal ko ci biir système dugal ko ci biir euh, son texte normatif c'est-à-dire les pouvoirs li ñuy wax les pouvoirs normatifs du conseil constitutionnel. Mhm. loolu daf ci bokk cest à dañ ko intégrer c'est fini. d'accord bu ñu demee nag ba jël une autre décision. Mm-hmm. mooy que d'abord un le conseil constitutionnel n'aura pas respecté le droit. n'aura pas respecté sa propre jurisprudence mmh. et n'aura pas respecté le peuple sénégalais parce que cette élection là mmh. une élection quelle qu'elle soit c'est la fête du citoyen sénégalais mmh. voilà am nañu ne tabaski la quoi maam Birame waaw ma commencé rek par def une digression parce que soxna si. bu man damay wàññeeku maa ngi koy dégg rek muy sànni xeer Mamadou Gueye mii te.